sunu bës TV jàmm mbokk internet yi topp chaîne bii di suñu bës TV ndox du bàyyi yoonam ñoom waaye politique yi nag liñ leen di nimeeku jamono ji rek ci kër kilifaay diine yi bari na lool gannaaw bu yàggul ba ñu gisee Bart demoon foofale ca Touba waaye tamit Bougane Gueye Dany tamit Bougane Gueye Dany itam bu yàggul lekk demoon na foofale ca Touba ni ki tey jile nag daal dañuy gis si yeneen yi xabaar que ñuy wax ni Bart Milé demoon na rek foofale ca chaise la xalif général Cheikh Mahi Niass lu ni mel yàgg nay am ndaxte katu ñoom waaye politique yi dafa mel ni rek bu élection jubsee wala lu ni mel li ñuy jaabante ci kër kilifaay diine dana bari lool ba tey ci kil kër kilifaay diine yooyu yile ak ñi nga xamante ni ñi ki tey jile daal di nañuy siiwal ni kat gis nañu ak la xalif général des mourides du groupe wal fajiri ñoom ñi leen ak ànd ak Cheikh Niass ak directeur bi la di Moustapha Diop ak seen nupp délégation fu mel ne oustaz Hadi Niass ak ñeneen ak ñeneen daal di nañuy yëwal ni ñoom ñu ne bokk na rek ca la nga xamante ni daal dinañ ko fay wax. Sunubuzz TV nga xamante ni daal dinañ koy couper seen ko signal ñoom groupe Walfadjri